ahosu billahi mina sheytaani rajim bisimillahi rahmaani rahim man soxna Fatou di leen leeral lenn ci ndénkaane yi Serigne Saliou Mbacké Serigne Saliou Mbacké it daana wax ne ci yërmandeem ci baax ga ci ku am diine ga daana wax ne bu ma leeroon ne ñaq doomu aadama yépp tàbbi nañ xel ko ma bàyyi ko woote moom Cheikh Saliou Mbacké it daana wax ne ci yërmandeem ja rus naa jamonantoo nit muy faatu di dem moom Serigne Saliou Mbacke yi boroom julul borom xabaan daana wax ne sama ndongo yi ku yàlla wanoon sa maqaama di nga naw sa bopp ba bu ma la yónnee sa kala ndox ka bañ moom Serigne Saliou Mbacke yi ci yërmandeem ja daana wax ne la ma Serigne Touba jiitoo ci yéen dama koy ànd ak yéen ci kaw jiitu gi ma jiw jiitu ma jiitu ngeen topp ma waaye bu ma gestoo gisuma leen damay lëpp taseeg yéen bu ma ñëwee fekk ngeen dem ma jiital leen topp ci seen ginnaaw waaye duñ ko mukk waaye man day bu ngeen ma jiitalee dara luy yàq diina ji baa mi yàq ànd bi duma ko def mukk du bàyyi ko ci man mukk waaye man de ànd naa ak ñëpp ndax duma fekk lu yàlla yaatal ma xatal ko ànd naa ak ñëpp duma fekk lu suñu boroom yaatal ma di ko xatal moom Serigne Saliou Mbacké it daana wax ne yàlla moo yore jaamam te yërmandeem la leen yore kon jàmm ak yërmande lay ñaan fu ma tollu muy yokku ndax sëñ Saliou Mbacke yi daana wax ne nit boo ko jàppalee lu jëful nga gis ko wala nga jàppal ko lu mu nga dégg ko loo ko jàppal lu nekk loo jot la te loolu suñu borom teguma ko moo tax ma naan ko jàmbaari lislaam la gaynde Bamba kenn du ko jot maam Cerno mooy maam ja gi kemam jafe na yoonu murit la Pastef ba kenn du ko jot borom Touba jaxaay borom Touba kii kat mel ne moom jafe na. sëriñ Saliou Mbacke yi daana wax ne. jàmbaar dëgg du xuloo du xeex day muñ ba am la bëgg moom borom njurul xabaan daana wax ne ku wex xàtt ba mel ne gaynde wéet ba mel ne gaynde ku lewet ba mel ne muus di nga am mën a ànd ndax muus kat ku ko yor du ak am njariñam ak lewetam a tax moom Serigne Saliou Mbacke it daana wax ne li wolof naan fat fati mbaam tàggali ki noppam nee na loolu wax ju yàqu la bu ko mbaam di def la ne ci biir nopp la bëgg a tàggool waaye du ay noppam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu